jërë ngeen jëf mbokk yi topp ci info 7 ñu nuyuwaat leen bu baax dalal leen ak jàmm beneen yoon sa irsa ñu wax nag ci xabaar bi nga xam ne xabaar bu tiis la bu yéeme boo xam ne tey jile tuuti ko loon rek yee daal di am foofu ca buntu palais de république lu nu mel nag mu ngi am tey jile booru 14h30 benn doomu aadama boo xam ne daal nee nañ mu ngi bokk ci ñu naan militaire invalide maanaam ay takk yoo xam ne danoo liggéey ba fégal seen liggéey si la daal di bokk moom moomee nag di ab takk der tey jile la dewoon fa nga xamante ni moom mooy fa jàkkaarloog daluwaay njiit réew ma di la république bëggoon a taal lii moom daal nee bi muy ñëw ndiwaal na li nga xam ne moom mooy essence ginnaaw na bi mu indee essence boobee sotti ko ci boppam amoon yéene ngir daal di kos jafal li nga xam ne moo di boppam loolu nag tax na ñii di woy takk deer yi nga xam ñoo féete woon foofee si daal di ñëw ca bërëb ba na mu gën ngir daal di fexe daal ba ki nga xam ne nii nee nañ turam mu ngi woyoo ci bokk ci ñi naan militaire invalide booru 14h30 ginnaaw bi xamante nii daal bëggoon na taal boppam ñii di eh, woy eh, ñi yor kaaraangeeg pale ba daal ñoo daal di gaawandi yegg si foofa ngir lu nu men mujjut am moom nag li waral mu def lu nu men mooy jafe-jafe yi nga xam ne daal jàpp nañ ne mu ngi koy dund ci ak euh, li nga xam ne moo di dundam tax na tey jii mu bëggoon jeexal dundam fële ca palais de la république bëggoon taal boppam tey jii ci gi booru la lu ñi nga xam ne daal ñooy mooy woy sécurité di woy sapeur pompier ñu ñëw daal di teg a taal ñu naan militaire invalide di wéyee seex moom nag lu nu mel tey jii la am fële ca palais de république muy delluwaay njiit réew mi lu nu mel doon mbir moo xam ne daal bu amoon day doon mbir mu doy waar tey jii foofu ca palais république ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci topp ngeen topp info 7 di leen wax ngeen wéy di abonné di partager di laal lii di cloche notification bi dina tax lépp luñ dugal ci xabaar ngeen jot ko nu mu gën a gaawee jërë ngeen jëf